mënuma comprendre sa jankat defal lépp sa jëkkër sa lal sax mu koy def na patron yi am xel tuuti mohamed ndiaye déggoon naa mu wax benn affaire mais bilaay dëgg la am na jank yu nekk prison camp pénal ak fépp ci sénégal la leen fa dugal dudut am doom faat ko wala am doom sànni ko ñu tëj la ci te dara waralu ko lu def patron ndax daf lay kidnappé boo ko waxee dama lay rey boo ko waxee dama lay def lii ndeysaan jank ba du ànd ak xelam ndax du xalaat wala mu ñàkk am xel xam ne loolu mooy solution bi mu def ko ñu tëj ko ci prison yow nga des ci ndooy baan bari kilifa yu yor ay malaise ak di yor ay dama def ni di absente di toog seen xel mooy nekk doom ba amoon ak jant ba te mënuñu koo wax na loo xam ne doo ko mën a wax ma wax la ko tey am na loo xam ne doo ko mën a wax am na yoo xam ne seen doom yaa nga dëkk ba laa la wax am na dëkk ba da nga di way baayam kii ba da doon liggéey sa kër am fa ñaari weer nekk en état ñibbi dëkk ba wusi toog fa genn wal feral ko xale ba ñëwaat Dakar kon di ligue nan dem jël seen doom yi ci dëkk ba te ndoy bo waxe ci jànq wax ci patron yi mais jànq tamit ndoy ba lepp ñooma waaw man duma leen fàdde lépp ñooma ndax ndoy ba da ngay gis jànq bo dugg ci kër mel ni indi wu ko fa di solo nu ko neex di def nu ko neex pour lan bu dé ligue mo la indi liggéeyal wer day ñu fay la sa mais ndoy ba da ngay gis patron bo xam day jël jànq jànq bi moy def lepp nga aaki mo kër gi di sungu fu di reen di sangu di def lu ne lo soxla ci yéré madam yóbbu ci sëy loo soxla ci yéerum sëy yóbbu ci sëriñ reen leen a reen a reen ba ñoom dootuñ xam fu ñu nekk li ma lay wax nii am na patron yu naan dëgg la de am na patron yoo def ko dàq ko faa jëlee ma wax ko am na yoo xam ne da ngay ñëw ubbil jànq sa kër ubbil la da nga sat wecc mu dem yoonam am ñoo da ngay ñëw jël jànq ko en l'aise doo bëgg dara lu ko metti taalal ko télé mu topp télé ba ba li muy togg xam wala minute bu ne mu dem taal télé ba sa liggéey du normal doo am noo bëgg am na jànko yoo xam ne ndeywaan dañuy topp téléphone di wax fii bu suba yow même sa patron bu lay woo du la mën a jot ndax yaa ngi ci communication topp rajo bi wala am na patron yoo xam ne ndeywaan dañuy jël jànk jànk ba di nelaw seen kër di nelaw ba suba du leen amal benn njëriñ tayal ak tayal ak tayal ak tayal jànk ba day salté salté salté patron bi du mën ci moom dara da koy mujj di ko xool rek wala jànk bu ñëw di yërëmtul sama yaay daa gaañ man awma li awma laa nga jël ko def ko sa rak jël ko def ko sa doom mu roñ la ba nga set wecc xëy ñeenteel doo xam boo koy wër bari na kaa yu mel noonu sénégal motax tax patron nañu vigilant xol jant yi ñuy jël amna na jant yoo xam na nga leen di jël ñu ñëw fexé ba jël sa jëkkër waaw sa jëkkër du ko tay de da koy yéwa yeewa yeew ba du ko tay amna patron yu bari yo xam ne tay nañu xolaat seen jëkkër ñu nga ëkk appartement di ko fat jànq ba jànq ba bu wacce sax samedi mu nga fa bu wàccee quinze jours mu nga fa amna patron yo xam ne tak nañ seen jànq tak suuf tak suuf bi bari na sénégal mais jànq ya ci ëpp dalay tak tak suuf motax moo yu bari na bëri nangootu ñu liggéey ñi ñi ubbi restaurant ñii di jaay ay diw ñi yor ay cosmétique xolaatal bu baax jànq ba sa pat sa jëkkër moo ne ci ginnaawam di ko jàppale defal ko lu ne li ma lay wax nii lu leer la am na patron yoo xam ne jànq bam euh, patron baa ko sarfak bitigam mu toog fa di jaay ne bàyyi naa liggéey bi moom lenn sa jaar ngoon di jaar suba di taseeg ci mën dara patron yi nañu si disi naa xoolaat jànq yi ñuy jël dama fi yoroon benn natt xam nga jànq vacances yi dañ lay calculer li ma la wax ne la dañ lay calculer dañuy ñëw sa kër li jënti sa bagage yëpp daal di teg sàkkal ko jour gis nga dernier jour bi ñu lay bàyyi bi ñuy bàyyi ne dañuy ñibbi fekkee seen saak sa bagage yëpp sanga sa bi dama ko doon teg ci ko bibeloo bi bibliothèque bu moo daan moom moom mujj mujj sax di ma bindal xale bi euh, dafa amoon ma ne ko Fatou bindal ma ñi ki indi natt rek xaye baa ngi ko bind mu bind ko di calculer xaalis ma grande surprise gis nga jour bi may xamul ne man fegar laa jour bi muy dem sa ibbi saak ba rek fekk mu jël mbuus ma takk ko ba mu ne ngodd ทำไมประดาทำไมสิริบุตรมทำไมติชัที่ชัด ay jiin ay lépp ma ne ko saag bi nag mu ne ma yére yi ma dencoon ci ginnaaw la ma ne ko demal ca boutique ba nga jëndal ma kii sachet ko ci ndax lii nii dafay tuuru te ba mu demee ba ñëw dama jóor yére yi bi ci digg saal bi di ko xaar mu génn rek ma tëj bunt bi tegaa tegaale mbuusu xaalis bi ci kaw yére yi ma ne ko Fatou mu naan ko koo ëpp te mbokk mënoo koo jëw xam nga yàgg naa laa jàpp ci meew ak suukar mais dama ne kii naa ko bàyyi rek ma jël meew wax déplacé boo amee xel ma déplacé meew bi boo def boo xam amee xel xam ne nekk yow xam naa ne yaa ngi jël samay bagage man jànko duma sàcc nag man sàgganu ma waaye lii danga maa naroon a saay saay yére yii yaa ko moom lii mooy li nga dentoon ci ginnaaw man xam nga sama kër kenn du fi ñëw mu ne ay tanta baal ma wuy sama ndey baal ma ay waay ngir yàlla kon bu ne ñu sàcc dañ lay jiiñ sàcc ñoom nañu wax dëgg bi ñoom xale yi li ñuy def mag ñi li ñuy def dañoo dàqal sàcc sa or ñu sàcc sa lépp ñu sàcc mi daan yee war a réglé gis nga xam nga lan xewal bu ñu ñëwee xam nga bu ñu bàyyee dinañ lekk dinañ naan léegi nag bu guddi jotee xam nga du ñuy def léegi cagatu la ñuy def bu guddi jotee gis nga boo demee benn tali ku fi am at rek am nga doom ndax xale góor yi mel ni ñoom ñi ngi ci tali bi ñoom tamit jënd leen saan yu sëddal leen moo tax xoolal ku ci bàyyi sa liggéey balaa am ñaari weer nga ëmb ndax il faut nga lekk il faut nga naan dañoo yeewoo yeewoo yeewoo dañuy dox ci sa maañ gis nga tajjitu saabu sax dañ koy sàcc di ko lëmal seen yére indi moo tax suñuy yére dañ koy indi gis nga bu ñu indee benn mbubu tey bu subaa ñu indi wàlli ay mbuusi mbuusi mbuus ñëw jal ko sa kër boo diyee fu dee mbuus nekk xamuñu fu ñu teg xamuñu fu ñu taxaw lu leer laa la wax gis nga mbindaan yi jant yi noppalu ñu dañoo sonal man de barke Seydina Mouhamed banaa jant ëpp na fukki at man xam nga man ragaluma wujje ndax man jeeg bu ne fàng mbay la man du ma ne jeeg toggal du ma ne mbindaan toggal man du ma ne mbindaan yekkal maa ko dàqa togg maa ko dàqa sañse ñaa ngi dégg mais dafa am yoo xamante ne fii ci boppam laa la wax dañuy dem ba dañ lay napp yow yow yow patron yow commencé fetal nga ñëw liggéey si buñ la waxee te buñu won baax dañoo saf làmmiñ gis nga mel ni saatus mbele laal bu baaxoon mbaa liggéey taxoon koo dina doxee neneen lu dul ñëw taxaw naan dañoo soxor dañoo iñaan yow nit ki ba mu soxoree iñaan it duñ ko sa doole boo ko ko jaayee mu fay ko yow da ngaa ñëw liggéey si ñëwuloo pour jaayanteeg jëkkëram mbaa ñëwuloo pour jaayanteeg goro nga kan e, lu ñuy def gis nga gis nga jank bi da ngeen leen a war a wax dëgg xam lekk di bàyyi jank bokk ma ca ñay ber jank bokk ma ca mais nag boo amee noo mel dama lay ber dëgg neexul nañu régler seen bopp yow mënoo ñëw fekk nit sëy ak jëkkëram ba pare nga bëggoo ñëw foo xam bu lay nee loolu la toogal sa kër ku góor ka fekk la fa bu la fa fekkee nag lu la neex nga def waaye man doo jël sama biir di doxaanan teg sama jëkkër duma ko nangu duma ko nangu gis nga jank ji doxuñu doxu jank am na ci ñoo xamante ni si nag liggéey rek a tax a jóg am na ci ñoo xamante ni si nag rek a tax a jóg ay lañu da ngay xool am na benn sama benn copine boo xamante ne si keroog dafa ñëw sama maanaam xam nga nu jëkkër ji def jëkkër ji ci boppam def ko dara xam ndaw booy xëy avant ngay xëy yow ñoom dinañ ñëw léegi su ko defee ñu wodd nga ne kii da dafa continuer wodd mbaa sol blouse am demee ñu simmi blouse ba sër ba teg fële juutu xale bu góor ba di fomp kooku ngi ci bi di seetaan télé ñuy fomp di wiijoo kooku ne ko xam nga lu ma lay bëgg a xamal yow lii ngay def man doxuma yow tu es trop tu es trop vulgaire li ngay def du yoon xamal la mu naa mu ne ko fompal li ngay ñoo xam nga lu mu ko wax ne ko kii dàq ko kii jógul pour liggéey li ñuy def bu leen leen faral nit ku ne nit nga rek nit ki boo xëyee liggéey nag il faut nga am ko togg tey mënuñu togg ko togg yow yaa leen di jàngal sa togg jàngal seen ñoo am ci yow weer daal di dem mënu tati yokk seen i prix noonu la ñuy def gis nga ñu ñëwee xiif xiif gu gi ñuy àndal nag doo comprendre dañuy sax sàcc sa lekk soo demee liggéey bàyyi leen sa pot chocolat boo ñëwee pot chocolat ba ñetti fan lay am sa kër jeex dañuy diw ba mu tooy amoon naa daan moo xam ne dafa daan wax naan na ndékki loo dafa neex te ñoom seen dëkk duñ ko defee noonu ñu ëlbatiku ñëw indil la baadoola gu mot sëkk nag gis nga ñoom dañu nekk ay nit ñoo xamante ne boo leen xoolee sax ñu ne nañ ma xoolee nit nag boo ñëwee ne dangaa lii moo la tax a loolu moom ngay def duñu luqati pot mun naa tege fi dinañ ko wër juróom-ñetti fan duñ ko bale nit nag boo nekkee ci sa biir kër yow yaa xam yaa xam sa liggéey da nga bëggee ñu defee a a wax a nit ña nga dëkkal gitu. dañ lay jéppi bu ñu jógee ñëw liggéey sa xolal taal sa télé taal sa rajo taal sa musique teg seen wàllu sek jël seen i écouteur def ci seen i nopp li la ko di la ko tépp ba tuutim jour du ñu liggéey ba nga wàcc liggéey ñëw fekk sa liggéey di man sama goro dafa mujj dama ko ne nañu bàyyi mbindaan yi man su ma jógee lu ma la mën a dimbale ya. léegi guddi la ñuy defar kër ak sama doom yu góor yeeg sama sët yi ñu defar kër ba mu net suñ demee kër ga ca sali dañ koy defar ba mu ne net netara. ak jëlatuñu jàng jàng fii ñoo doy waar lépp luñ ñu wax rek am na lu leen war a waxal fii mën a waxa fi nekk mais xam ba ca da caa loolu ñoom dañoo ñëw dagaar di ndox ci maayuñu nit ñi bu ñu sangoo sa kër la ñuy sangoo du ñu sangu dañuy tancaloo ci benn néeg waaw bu ñu xëyee su ma teel xasoo kun seen yére yi xasoo kun bu dikkee chaque jour ko jëfee nag yére ba ñuy sol dañ koy fóot dañuy fóot rek di paccax paccax di yàq ndox yàq courant foo gisee mbindaan balaa onze heures nga ne pare nga daal di taal télé toog ci saal taal la sa tànk defaru ba jekk bu ñu ñëwee xoolal liir say parfum liir say toccamikaay liir say leneen daal di bind dem jënd di toccamikaay di roy ci yow dafa am yoo xamante ne si liggéey indiwu leen Dakar càggatu moo leen indi Dakar man xam naa li may wax man faraluma benn jàng faraluma benn jéeg jéeg bu fa koo laaral ba nangu sa jëkkër ci yow la ndax jigéen tamit dafa am loo xamante ne si say compétence bokk ci bagage bi la bokk jigéen da ngay mën sa bopp defaru ba jeeg sa jëkkër li muy wuti ci biti na ko fekk ci biir kër gi loolu manque de compétence la ku ñu fi jël sa ci yow la man jànq bu jógee ci àll ba du jël sama jëkkër ndax xamoon nu ma def sama jëkkër ñoom nañu wuti jëkkër bàyyi nañu ay góor seen dëkk dëgg neexul lu tax sayuñu góor ñooñu nga góor bu nekk Dakar nga ne Dakar ngay sëye dëgg la dañ leen war a takk mais fii ku ci nekk da nga am sa place nañu xam seen place nit da ngay xam sa place kuy xaar ba ñu wax la doo xam dëgg neexul ñuy wax leen leen dëgg nañ xam seen place ay jigéen lañu doo mën a fekkee yow sa moromu jigéen lijjante ba am jëkkëram nga ne dama cay buruxlu damay def samay feem ndax du def li du def li du def laa ña leen di tegloo añ ak di leen tegloo reer ñoo ko def man sama benn mi naan du tegal sama jëkkër sama reer man di ko tegal añ dëgg neexul da ngeen baal ma ñii dañoo ëppal man bokk ca ne ma dajal maa leen jàngal toog bu mën toog ba fi nekk ni fu ñu dem tey fu ñu togg tey ñu ngi fayee ko ay fukki junne fukki junne ak ñaar ci man mi la ñu jaar man nag nit naan damay toog wax ak yow ne la xam nga lan la man damaa bëgg nit koo xam ne si bëgguma ku may calculer loo bëgg ñaan moo ko ma may la ma la yem loo jéem la mais mi naan moo xam ne da ngaa ñëw xasoo ko ni tey foqataan boo jubee nit bu asib moo ci ndax dañuy tàncaloo ci seen biir néeg ñun ñëpp fukki nit ñooy fanaan seen biir néeg tàngaay bi seen foqat bu ñu xëyee duñu sangu bu ñu ñëwee ko la noonu la ñuy continuer liggéey ba seen heure wàcc jot ca la ñuy sangoo sa kër la ñuy sangoo su lekk boobu bu neex sax bu ñu ko defee sa ko def yaa ngi dégg léegi bu ñu paree au lieu que ñu tuddati ñu sangu ñibbi déedéet dañuy sangu taal sa télé toog di seetaan sa jëkkër wàcc fekk leen fa mbaa ñu koy suba teel ñëw comment ñëw ne dañuy loolu dañuy dañuy kii dañuy nu mu tuddati xool say bagage di ibbi say boîte or ak di def lu kenn xamul nit nag amul lu dul sa biir néeg soo dencee loo denc xam nañ ko ndax boo demee liggéey du ñu liggéey dañu nekk di ibbatoog di loqateek di def lu kenn xamul lépp li ñu war a xax ci ñoom rek def nañu mel kenn mënu koo wax jànq ji ci boppam dañoo sikk xaalis yëkkatiwu leen xam nga lu leen yëkkati lu du travail yëkkatiwu leen xaalis moo leen yëkkati ak góor dañu fekk sa goro si biir néeg sa xoolal di ko moromoo màgget yi sax bawuñu màgget yi mbaa ñu jël sa doom ju góor di ko jàngal jigéen di yéeg ci kaw di yéeg ci kaw ba xale ba du xam lu dul jigéen man sama doomu rak fam na ne jigéen ñi sax bu ñu ndawul mu ko jàngal mu ne xam naa faatu xam nga ñoom ñëpp faatu lañ jóge ko jàngal faatu moo jël sama affaire bi di ko def ci affaire am lañ ko dàqee yi ñuy def loolu ci a tuuti mbaa ñu tëye sa biberon doom di ko naan di daw war na ak képp bu rëy la ñu jëlee seen dëkk ak góor caga lañu moo tax ku koo fi daal bu amee ñaari fan ñett nga gis ko mu jëñax biir ndax du am lu mu lekk du am lu mu naan lay dem ci xale góor yi usine bu benn tali ñu di leen tëddee ak may kay koo ci gis mu ngi boot doom léegi nag bu ñu bootee doom du ñu am fu ñu liggéeyee li ñu mujj prostitution gis nga yow di dugg boo duggee benn tali ba moo fa ëpp que jànq di jànq ñuy liggéey ndax ñoom ñëpp am yi ndax ñun di bàyyi suñu goro yi ci kër yi suñu goro yi màgget xam nga ma yàlla baal ko war wax góor rek la mën a nekk jigéen nag boo ñëwee di liggéey sol yenn tenue yi góor góor la rek xam nga nag kan mooy perte ñoom ñooñu ndax toujours nga gis ñu biiral fi mu daan foral bañ ko mu leer la ne jëkkër jee ko biiral day lank ba tëdd ca ñagge ndax ñemewuñu seen jabar yi ñoom xamuñu ne ki ñuy takk moom moo am droit xamuñu loolu dañoo war a liggéey te ñibbi loolu mooy dëgg mën nag sama waxi dem mooy sama waxi tey jànq ji baaxu ñu sàcc lañu saay saay lañu lu leer laa la wax rëy laa miñ nag lañu def ak wax ju rëy ndax ñu ko jànq yi ak employeur yi ku ci nekk dangaa war a xam say statut gis nga ñoom man ci jànq yi laay commencé nga xóot nopp ba mu ëpp baaxul ndax jànq ji dañoo ñëw di lijjanti kër nit ñi yow mënuloo jóge fee nga ñëw taxaw ne dangaa ñëw di dangay liggéey fi bu nga lijjanti nit ka ba xam ndax ma ngay tegal jëkkëram ak ma ngay toppatoo jëkkëram ak ma nga dul yoon nekku ci loolu foofu nopp baaxul man de damay wax en connaissance de cause ànd ko ma déggal di nga ba jàng wax ñoom liggéey si wuñu te rendre ñu dara xam nga lu ñuy indi ñoo dox ci suñu maayam calcul lañu lekk lañu yor tëdd suñu kër naan suñuy naan lekk suñuy lekk sangu suñu duus def lu leen nekk ci seen sa biir kër ga bu ñu paree xoolal fontoo teg te ko ci yoral benn dërëm mu taxaw weer la ndax weer ni paaseetul nga taxaw ci rajo naan lu ñu toggal seen jëkkër yi lu ñu baax te ñoom dañoo a togg yow koo xam togg mënuñu dara ba dara booloo jeex daf nit da ngay mité warloo ñëw fekk nit ki li jëm ci jëkkëram teg ko nga ne yow du defal li jëkkëram du waxal li jëkkëram moo tax man dama cee porof ndoll bu mu jaawale faut pas mélanger yow da nga ñëw ne jànq ga ki lay liggéeyam la lay bu fekkee da nga ko jëkkëram tàmmalu ko di ko fóotal kalson mbaa nu mu tëdd keneen loolu sa yoon nekku ca yow yaa ne liggéeyu kër ngay def sant na la loolu yow yaay kiy ñëw di corriger nit ki ak di joxe ay leçon de morale du fóotal jëkkëram mbaa du tegal jëkkëram moo tax bu ñu seen jëkkër yi doxaanee ñu jël loolu du yoon man nag li may wax mooy tani nga jigéen jigéeni Sénégal yi nañu vigilante te ba jànq yi ndax ñun dañoo sëy te yàlla tax man da jànq duma saay sax lañu sàcc lañu nopp lañu def baaxuñu sant ñu yàlla dañ lay calculer sàcc laa sàcc sàcc ba nga jeex tëdd sa jëkkër nekk ci biir kër gi ay saay saay lañu xóot nopp lañu def tëdd sa jëkkër di tëdd say doom di leen jàngal jigéen di tëdd sa jëkkër di tëdd say goro bu leer laa la wax ziyaar naa la de ay ndoy baan ñun nga waxal tey de jànq yi cant de bu ñu la expliquer seeni problème yow doo sax mën a comprendre yàlla xam na ne bu jànk amul woon de këri dakaar yépp ay tas tas rajax man de ah, am naa ci ay yu ma ci xam yoo xamante nii tey su ma ñëwoon xalaas rek ah waa xajut benn jour jour xalaas man liggéey naa ci kër de borom kër gi mu ne ma ah bul sol baax waa si laa arrêté bañ sol baax xam nga finalement mu ne ma waa yow xam naa ne soo solee sër di ko wogas moo sol baa ñu yem kon léegi de garaaw léegi yow soo xëy seetee ah solal eh, baa mais après bu six soo liggéeyee moom ba noppi ah bu sama jëkkër di bëgg a wàcc jëlal sër si laa ne ko d'accord eh, jëkkër ji nag gis ma rek doy baat ah, bëgg ma xale jigéen bi su wàccee ah waaye foq na pirig bi dindi na sañsa bi solal la yoo xoolal façon de robe boo xamante ni ah waa rëy gam rëy modde gam modde ah bàyyi noonu noonu sëgg koy monte ma ci machine ordinateur bi man may taaj reer maay defaral jëkkër ataaye yàlla xam na ne xoolal lépp jëkkër ji maa ko géré woon yàlla xam na ne finalement man xoolal bëgg-bëgg jëkkëram sax maa ko ko xam si laa am këram euh, mois de mai daal jëkkëram moonte ba suñ jonni yàlla tey nii ah chaque jour daf may woo euh, euh, pour comme ça après man waxaat ak jabaram pour man ma ñëw jëkkër ji maanaam moonte bëggul man ah sama liggéey arrêté foofu mais moom ah nga mënu ko wax jabar ji c'est parce su ko waxee jabar ji rek ñoom ñaar dañu am problème moo tax chaque jour mën naa ma sama waa la woowal madame Sall pour après da nga ñëwaat affaire yooyu noonu mais man nanguwuma ci que di pourtant ah, waa kilifa gu mag la ci réew mi su ma ko waxoon tey da ngay tiit parce que Serigne Saliou ma yaakaar ndoy baax bi ah liggéey naa si xale bu jigéen bi dafay tux xoolal di mandi ba ne jëkkër ji moom musuma kaa gis fu mu um, xaane sàngara mais nag dafay jël Marlboro xam nga man xoolal maa fa nekkoon fooy baan fu ma liggéey quatre mois wala six mois yow dinga am friction sa diggante ak sa jëkkër ba soo may dàq sax ah duñu sekk dara waaw c'est parce man càng soo ma euh, fekkee sama waar dama kay liggéey comme que euh, ni ma ko war a liggéeyee waaw gérer kër waaw fu ma dem tamit xale yi dinaa leen jàpp ko comme que man maa leen jur waaw mosuma am na jëkkër mais suñ boroom damaa natt ba ah fu ma liggéey fu ne yow patron bi soo soo moytuwul sax man maa lay gën a jekk benn histoire te xoolal mos naa ko ci am sam benn xarit dem mos na gis xaritu patron bi bëgg jàng torop sonn na bëgg cànk ba liggéeyam commencé yàq mu ne ko léegi après am na sam benn copine eh, fan yi dafa arrêté ak patron bi mu ne ma ñëwoon itam xoolal dañoo paas ndoy baan damaa yeewu six heures mu ñu paas ba këram ah fekk na sécurité gi moonte woo na ma man daal ba ñu waxaale ba juboo ba ñu egg sama xarit bi yóbbu ma fekk man après photocopier naa sama carte d'identité defaale sama saak yóbbaale li nga xam ne su ma yeggee war na ma commencé liggéey daal dañoo egg toog ci saal lu mu ne sama xarit ma gis la mu ñëw mu ne ko ah yow moom moom xanaa nag maa kom faloo yow yow seetlu ma indil ki moom a gën a jeex waa waaye nangu sama jëkkër ji <laughs> amaan naa tamit beneen temps xooy baan Sëriñ Bamba xam ne ni liggéeyal naa koo xamante ni ah man chaque quinze jours dama ko daan wàcc dimanche kese moo yow mu soxla wàcc xoolal tërtër la may woo ah mu ne ma xaaloo ah sama jëkkër ji tey ceebu ginaar la ma ñëwal de ah nu ma koy rusee nu ma koy defee ay waalo mënoo ñëw tey soo ñëwee après man tamit ma jox la paas parce ma ne ko man moom dëgg yàlla damaa sonn 15 ma di ko liggéey kon nag tey jii waa sama jour de repos la may xoolal ah waa téléphone bi du coupé jëkkër ji mu naan ko jus amoon semaine passée laa bëggee naan xoolal bu di ma woo téléphone waalo jus boobu nuñ ko liggéeyee waalo ceebu ginnaaw bi lu ko taxoon doore xoolal di ma di ma posé ay question yoo xam ne danga naan euh, kii moom xanaa ah, nekkul jigéen yan nii de yàlla xam ne ne li dund ci biir kër ah, waa dafa ëpp sa xalaat waa mën nañ ko def thème de la semaine un mois weer mën na ci dem te xoolal du mos a jeex man de waxuma la kaye mais la livre laa fi yore man livre ay kër yi kër yi kër yi kër yi kër am na si ñoo xam ne ay xolal waa kilifa lañ nit ñu ñëpp xam lañ ci digg dëkk bii liggéeyal naa seeni jabar te waa seeni caleçon sax man fóot naa ko ba tàyyi te xool loolu li gën a ñàkk fayda mooy xoola jàng ak muy am accès ba sa biir duusu jëkkër tey moom ah, mën naa jël sa caleçon jëkkër dem liggéey ci sa jëkkër hmm? waa jàng boo xam ne xam na sa poye faible jëkkër am na ci koo xam dama ma daan fekk ba ci waaj mu ne ma sa ansi mu ma yow lay dangaa saf jigéen waa saa soo romboo rek ma xam ne jigéen a ma romb ndax man doy baan lépp kenn mënu koo wax am nga jànq am naa jànq koom ñëpp parce que buñ nee jànq rek mooy ki nga xam ne moom ngay bàyyi sa kër boo demee liggéey ji moom ngay bàyyi ak say njaboot soo demee tam moom ngay bàyyi ak sa borom kër mu ne ci kër gi ak moom. Hmm. d'accord léegi ñu fas yéene dugg ci wàllum waxtaanum jànk yooyu noonu yow ban relation nga am ak sa jànk bi liggéeyal. ah ma sama jànk macha allah ki ma yor actuellement xale bu baax la parce que su ma demee bàyyi ko ak sama kër su ma ñëwee damay remarque ni sama njaboot daf leen di éduquer sax am ma place parce que ku ci nekk lim la war a defal dina la ko defal boo defee lu jaaduwul aussi dina la corriger sans nag pourtant mu soxore leen parce que xale aussi dafa fragile te vraiment ki muy nekkal ci kër gi dafa war a nekku laa biir koo xam ne aussi day mel ni yaayam mu bañ a sentir absence yaayam sama borom kër aussi su fekkee wàccaguma dina ko tegal reer da ko jàppee ni papam daal wala boog ni jaayam kon man je peux dire ki ma am baax na mais par contre euh, mosoon naa am parce que nit ku nekk tamit am na fu baax am na ah, liggéey bu nekk am na lu baax am na safaan mos naa aussi am jànk boo xamante tamit ñëw bon ma premier jour rek la ñëw xëy na kooku moom mën naa ne du woon jànk ndax da doon seet si bi mu ñëwee ñu ubbi ko kër gi yaatal ko mu xaar ba ma génn nga xamante sama borom kër mu ngi nelaw mu dugg ndànk si néeg bi ubbi sama armoire occasion boo xam ne nag daf ko préparé parce que xam naa peut-être kooku ñëwul woon pour liggéey si mais dafa ñëwoon pour yës bi mu ñëwee aussi malheureusement ba ma ñëwee yëg ci kaw dama fekk mu tijji sama armoire jël sama ay daan ne day tuuri mbalit loolu la tàggoo bi muy génn kër ga bi mu dellu si waatee bi ñu bi bi ma ñëwaatee xool sama sama xel ñaaw gisuma ko ma yéeg ci kaw ubbi sama armoire gis ne euh, malheureusement jël na sama boîte à bijoux yi nekkoon foofu yu mel noonu tax nag di nga am ñu baax mais di nga am safaan aussi. d'accord ñu dégg jàng di ñaxtu di ñaxtu partenaire jeeg ji dañuy toog bëgg lu yomb bàyyi leen kër gi am ci ñoo xamante ne sax dañ leen di bàyyi ñu dugg seen salle de bain di laal seen ay lal ba ñenn ñi sax ne ñooy fóot seen ay caleçon jëkkër yi loolu yoon la am ah waaw moom moom du yoon vraiment te aussi malheureusement am na am na nag parce que dañuy wax jigéen dañuy wax jigéen jigéen ñaari façon la am na jigéen bu sawar am na jigéen bu tayal boo xasee ba ni tayal rek moom loolu mooy jeexal wax parce que teyal moom mooy loo xam dañu comme ni ko jànq yi di waxee en général dañu bëgg lu yomb c'est vrai parce que aussi jànq normalement ma damay wax ni normalement sa jànq warul am accès ci yow ci yenn yi sa néeg wala sa foo xam ne dafa intime ci yow jànq waru fa am accès surtout ay caleçon wala affaire yu mel noonu yooyu dafa yéeme trop te c'est vrai que nag surtout nag sama mbokk xal sama mbokk sama doom yi nga xam ne en général ñoom ñooy doog a dugg ci sa yëg yooyu dañuy faral di tayal daal surtout ñooñu lay gën a daal te loolu tamit c'est très dangereux parce que caleçon dafa nekk loo xam lu garaaw la lu nekk mën nañ la ko ci def sa borom kër aussi lu ne mën nañ ko cee def te àdduna bi léegi dafa jaxasoo donc mieux vaut prévenir que de guérir loolu moom nañ ciy bàyyi xel ma ciy ñaax ñi nga xam ni ñun ñooy yaay yi ñoom ñooy yaay jank yi parce que ñoom suñu ay doom lañu ñoom ñoo ñuy dimbale parce que bu ñu amul woon ñoom ñun duñu mën a dem liggéey mais ñoom it nañu sàmm bu baax seen ngor sàmm tamit li nga xamante ni moom mooy seen loxo am na ñoo xam ne téewuñu seen loxo te loolu tamit c'est dangereux nga dugg kër nit mu jox la confiance def la comme doomam loo bëgg mu defal la par force am na ñoo xam ni seen salaire ko laal da nga leen di defal sax ba defal leen loo xam ne moom ngay defal sa doomi ci kër gi mais malheureusement am na ci ñoo xam dañuy aviser ci loolu ba sax di la jaxaseeg yu bëri daal ñun ñu ngi koy dund à cause yi ci biir kër gi lu xew ci biir kër gi ñu génnee ko. waaw loolu dafa am moom am na ñoo xamante vraiment ay jànq lañ mais ñooy jaxase seen patron yi ak seen bel seen belle patron yi am na ñoo xam ñooy jaxase njëkk yi ak seen patron te yooyu yëpp tamit nekk na loo xamante ni ñuy wax rek ku nekk am na fooy say foo xam peut-être am na ñu la ñu la soppul bàyyi xel ne bu ñu demoon ëllëg sëy yi duñu bëgg ku leen def loolu loolu tamit lu nit leble rek bu ëllëgee da koy am donc lu mu doon na doon lu baax rek loolu rek moo ci am solo. li jàng bi ñëw ci biir kër gi ba nga xamante ni liggéey na fa ba mujj gi muy doxaanante ak borom kër gi fóot boobu ci borom kër gi la wala ci jeeg bi nga xamante ni moo am fu mu faayee ba jàng bi nangu jëkkëram. ah d'accord loolu moom vraiment ci ñaari côté yëpp laay wax parce que su ma nee ci jéeg bi la mën na nekk ci jéeg bi parce que yenn saa yi tamit nga bàyyi sa jànk ak sa borom kër benn liberté boo xam ne lu ci xew xëy na yow am nga ci part de responsabilité ndax comme ni nga ko waxee sànq xam nga ko dem bay fóot caleçon nit pour nga jekk ko ba def ko loo xam ne day topp sa ginnaaw ba fàtte jabaram loolu mën na nekk donc loolu faute bi mën na nekk si jéeg bi deuxièmement mën na nekk si jànk bi parce que jigéen tam dafa doy waar jigéen dafa am nu ko yàlla bindee noo xam ne jigéen lu mu ñaaw ñaaw ñaaw bu taxawee tey ne ki ki a am xaalis si monde tey dama koy aborder am ko ci ndimbalu yàlla da koy mën a am ndax dafa am lu ko yàlla dénk loo xam ne dénk ko góor te am na loo xam ne mu ngi ci moom góor mënu ko résister te en général parfois nga nekk say femme par exemple di fanaani wala nga nekk koo xamante ne da liggéey liggéey guddi nga bàyyi sa borom kër ak jànk bi xale yi nelaw nañ te ah seytaane dafa bëri doole mu ñu egg ci benn instant boo xamante ni ku ci nekk seytaane dalay dalay yóbbu yóbbu boo xamante ni di nga def loo xam ne après loolu la ñuy gis conséquence fekk na boobu peut-être loolu moom ciw jànq bi lay doon mais bu njëkk bi moom comme ay fóotloo sa jànq say caleçon borom kër comme di ko bàyyi muy intime ak sa jëkkër yu ëpp yooyu noonu tamit wóorul daal parce que àdduna bi léegi moo tëddee noonu léegi gis nañ fi lu ne comme nag gis nañ lu ne nit ñaa ngi wax ci télé ñi ngi wax ci journaux yi ñoo ngi wax si rajo yi rien que pour yeete te mënul fexe ba tamit ba ñu yeew ñuy bàyyi xel bu baax suñu bopp di sóoraale loo xam ne ñëwagul aussi léegi naa aussi am na jeeg joo xamante ni jànq joo xamante ni du moins buñ nekkee ci benn genre tóob fu ñu bëgg a dugalee liggéey pour ci liggéey sëyu jàmbur ñoom lañuy jox ñoom ñooy dugal ci ànd yaag ñoom ñooy def ci lekk yaag yooyu noonu loolu est na. waaw mooy li ma la waxoon sànq rek mooy li ma la waxoon sànq parce que mooy nit loo xamante ni boo sëyee bëggoo ko la ko def fooroo ko def nit. jour bu ñu la joxee liggéey par exemple na am def ko sa ànd patron parce que nit ki nag jànk moom boo nee jànk rek mooy ki yor kër gi parce que ki xëy suba génn këram ba 19 mu ñëw kooku déggante 8 ak 19 lu ne xaj na ca lu ci jànk bëgg def mën na koo def surtout que ñun nga xam léegi appartement yi nekk nii moo tax nag aussi appartement yi loolu mooy seen inconvénient bu njëkk ba mag ñi dañ la daan yóbbu nga dem formation ci benn nga def fa nga sëy fa xam lan mooy nit xam nan ngay organiser ak lépp aussi itam ku bëgg a ñëw sa kër bëgg la def yéen nii fekk am na ñu fa nekk ñoo xam ne dina am lu mu ragal mais bu dee yéen yéen kese la nga bàyyi ak jant bi mu ngi mu ngi yor sax d'ailleurs kileem da ngay xëy ni ko tijjil dem naa mu ñëw tijji kooku lu ko neex mën na ko def si biir kër gi donc loolu tamit jànq bu koy def nu suuraale ni un jour dina am borom te bis bu amee borom kër bëggul ko ko def loolu donc nit lu mu bëggul ko def rek waru koo def moroomu jigéenam na xam ne patron bi jigéen la comme moom loolu tamit na ko bàyyi xel bu ba te alalu àdduna aussi jaru ko parce que tamit lépp loo gis tey jeex place jànk boobu ëllëg mën na nekk place patronam jigéen dara jomb ko nit tamit looy def rek gëmal sa te nga dëgg sa aussi léegi naa aussi am na jànk yoo xam dañuy dem ba niroog wujj ci biir kër gi maanaam dañuy ñëw liggéey si ba dem bay wujjeeg sax ka xam ne mooy seen patron ci biir kër gi waaw loolu mooy loolu rek mooy comme que bu fekkente ne yow dafa am li la tax a jóg nit ki tamit ku nekk ak intention bi am am na ñoo xam ne liggéey jànk franchement indiwu leen ñi nga xam ne nag liggéey jànk moo leen indi ñu ñëw pour jàppale seen i wayjur jóge dëkk ba peut-être bàyyi seen ay wayjur foofu gis ni seen condition yi ñuy dund metti na ñu laxasaay ñëw ni man dama fas yéene liggéey pour teral sama ay wayjur ñooñu yaakaar naa am na beneen idée bu nekk seen bopp que di wax ak seen jëkkëru patron am na ñoo xam sax nag ay góor yoo xam ne laa nag ñu baal ma ci wax ji mais am na ci góor ñoo xam tamit ay ay ay coureur de jupon nañ ma baal nag ci wax ji mais daf fekk ne lii tam il ñu wax ko pour ñu xam ne ñetti sens yëpp ku ci nekk da nga war a sàmmoo ak que góor bi aussi sa soxna dem na liggéey ji jamono neexul ba mu ngi liggéey di ñëw di indi ci kër gi ngeen di suturaalante di jàppalante yow tamit war nga mën a am benn caractère boo xam ne jànk bi am na fu mu mën a war a yem ak yow su wujjee ak patron rek sa parce que am na loo ko wan yow ci biir wala looy jëflanteen moom ci biir ba mu yëg boppam ba yaakaar ne war na mën a nekk ci place patron bi bu ñu demee ba jigéen naan jànq bu rafet si silwiise xëy na am forme comme ni ko gars yi di waxee du ma ko jël di ko dugal sama kër muy liggéeyal foofu problème amu la awaa am na nag de ah parce que nag kay wax na nag am na suñu mbokku suñu mbokku góor yoo xamante ni mënuñoo résister xal bu jigéen bu jekk de kooku moom mënuñu koo muñ moom dafay am moom franchement loolu tax en général ñuy wax loolu xëy na ñun jigéen sa yenn saa suñu fiir moo ñu yóbbee ci ñuy wax yooyu mais comme li ma leen jëkkoon wax sànq rek gis nga dañoo toll ci jamono boo xam ne dafa yéeme ba nga xam ne dañoo dañoo gis lu ne léegi mooy tax nag ba yow ngay ragal yenn yu bari parce que gis nga jànk boo xam dafa ñëw nangu place patron carrément te pourtant patron bi deful dara mais moo am yu muy indaale parce que comme ni ñu ko waxee nii am na ci jànk yoo xam ne ñuy am lu ñuy indaale dem ci sëriñ gis ni sa jëkkër am na situation xëy na ñoom bëgg nañ ko ñu bëgg a récupérer sa jëkkër na leen lu ne te am na ci ñoo xam ne nag malheureusement dañ koy am tax yàlla moo bindee noonu am na ñoo xamante ni dañuy liggéey liggéey boo xam ne bu ñu ko laalee rek mu dal parce que jekku nañ la jekku boo xam bu dee lekk la dañ la koy jox bu dee lekk la dañ koy jox sa borom kër donc buñ la bëggee jekku rek te fekk xel boobu moo nekk seen bopp rek loolu facilement dañ koy daal di am. waaye tamit da ciy boole wala tayalu ki nga xamante ne moom mooy mooy seen patron ndax su fekkente ni da nga bàyyi bi moom mooy taaleel sa borom kër yenn saa yi ñu woodu seen xeetu woodu yooyu nag wala sol seen xeetu sol yi nga xamante ne di ko taajal di daagu di ko romb di ko defaral café di ko lalal lal yenn saa yi di la maase sa kër loolu tamit est buñ la nangoo du yow mi jeeg bi yaa yaa yaa bàyyi sa loxo ah waaw loolu de moom dëgg la moom bu dee côté boobu tamit am na sens bi nga wax nii am na am na ñoo xam ne moom vraiment dañuy sax toog nii toog nii ci saal bi ñu toog nii seen boroom kër toog nii ñun la ee eh, diw demal indi bool bi nga jox ko nga jox ko sa tonton te loolu waru la fee feebaroo dara jotu la yaa ngi nekk si yaa ngi nekk en bon état xanaa peut-être mën nga feebar wala dara loolu moom nit ku nekk mën na la arrivé wala boo nga liggéey liggéey comme ni ma la ko waxee suñu mbokk sage-femme en général dañuy am garde wala yooyu kooku moom vraiment yow mënoo ci dara mais koo xam ne yaa ngi toog nii sa borom kër lañ toog nii nga bëgg lu yomb wala nga tayal wala surtout nag connexion yi ñu jël nag connexion yi ñu jël nag connexion yi ñu jël nag connexion yi ñu